Bye. jërë ngeen jëf conseil économique social ak environnemental ford mujj doon mbirum Aminata Aminata dem na Aminata ñëw na ci gàttal taal tëb na Touré ñëw na yéen kaay ñu xëyandool yu ca bari xibaar boobee la ñu xëyee ci seen xëtu njëkk mu di direct info la tribune la Sénégal le quotidien enquête réew mi quotidien Source A libération vox populi témoigné ba ci sud quotidien journal boo ci xool xëta mu njëkk fekk ca kanamuk Aminata Touré gi mbàgguk Aminata Tall gi bi l'observateur Mimi Touré premier ministre du Sénégal ba woon envoyé envoyé bu président de la république léegi mooy njiital conseil économique social ak environnemental wuutu na fa Aminata Tall président Macky Sall bi nañu moo fa démb laata muy dem Paris la France moo defub décret dàq Aminata Tall defub décret fal Aminata Touré ca conseil économique social ak environnemental l'observateur nañu waaye ñooñu Aminata Tall bi ñu yëgee wàcce nañu seen mbokk mi dañoo mer bay futt vox populi mel ne ku na na léegi ci lànguk fa ñuy doxalee réew mi conseil économique social environnemental gi ñu ko dénk mu di institution boo xam ne enquête dina kay mi ngi ñuy xamal ne liggéey bu rëy moo ko fay xaar ndax conseil économique social environnemental mooy institution bu amul benn code ci réew mi faaw Mimi Touré da koy tegaat fa mu war a nekk ñiy jàppal tànk Aminata Tall nag journal bi nañu ba ñu yégée ne Macky na Aminata Tall doonatul présidente conseil Diourbel ngir ñaxtu ko la tribune nañu Mimi Touré mi réeroon ci mbooy gi Macky Sall delloosi na ko Aminata Touré ñëwaat na ak doole Le Quotidien nañu Mimi Touré envoyé spécial ca conseil économique social ak environnemental direct dafa jot de mooy li journal bi bind ci xët bu njëkk yéenekaay bi boole ko ki kàddu yu mu nangoo ci présidente bu conseil économique social ak environnemental mu di Aminata Touré muy wax ne mi ngi dellu di biral yéene ji mu am ngir matal li ñu koy doyee ci li ko président Macky Sall dénk féddali na fa engagement ak loyauté waa yoote le témoin nañu wax jàngook moom Aminata Touré li ko président Macky Sall da ko koo fayee li ko ko may mooy jàpp te bàyyi Aminata Touré mi Macky jënde Aminata Tall bokk na ci militant yi APR yu njëkk engagement ak fidélité am du lu kenn di laam-laameeti ci réew mi Aminata Tall mi Macky buubal ay dëbësam ak i kalma njàngaanam jële ko ca conseil économique social ak environnemental réew mi quotidien nee na ñu ko amoonuk war a xam ne dëkk tekkiwu fa lu bari ci wàllu politique yéenekaay bi nañu li koy firndeel moo di toroxal gi ñu leen toroxal ca diiwaan ba ci wotey présidentielle 2019 yi Aminata Tall mel ne ku faalewul waa Bawal ku leen kippewul ku leen tegul fenn bañ na ko sax ba ci bésub élection présidentielle yi mu di 24 février Aminata Tall ba mu demee ba cinq jot ci lay soog a gontu dem njaaréem ne dafay feete ji victoire président Macky Sall ci wote it yéenekaay bi nee nañu ñoo koy waxal ne moom Aminata Tall dafa bàyyi ba ñu samp comité électoral bu Benno Bokk Yaakaar ca njaaréem moom mu taxawal bosu boppam réew mi quotidien nañu am na ñu leen wax ne bi njiit réew mi Macky Sall bëggee tàggu ak Aminata Tall yàgg na da doon xaar bés bu rafet ngir séddoog moomub yóbbal poste premier ministre amatul ci réewum Sénégal Sud Quotidien nañu léegi leer na nañ wér na péng Macky Sall tëj na wax ji promulgué na démb loi bii jële premier ministre ci réew mi Les Échos nañu Boun Abdallah Dionne ma newoon ci primature jóge na fa ma nga jëm léegi ca palais de la république la Sénégal tey la fay sanc démb ak bërki démb tali bi rey na ba doyal yëral xët mu njëkkul observateur accident bu mitti moo am ca Kaolack benn camion moo fa mbëkkante ak benn minicar ba juróom-ñetti doomi aadama faatu ci ca ñooñee ca faatu l'observateur mi ngi ñuy xamal ne chauffeur bi doon dawal camion bi ca la bokk chauffeur bi doon dawal minicar bi ci la bokk Vox Populi nañu accident bi mi ngi amee ci yoonu dox ci diggante Kaolack ak Nioro juróomi nit yi ñoo faatu ci saa si yeneen ñetti nit ñi l'hôpital la ñu faatoo am na ci it ñaar fukki blessé ak ñaar Sud Quotidien nañu yëf yaa ngi bëgg a dayoo ndax ci diirub ñaari fan ci diggante Nioro Fatick ak Ndakaaru fukki doomi aadama ak ñaar faatu nañu ci accident juróom fukk ak juróom-ñeent yeneen jële ci ay gaañu gaañu réew mi quotidien nañu ginnaaw tali bi géej jiit mi ngi jël wàllam ndax ci atum 2017 maanaam daaw jéeg 92 accident am nañu ci géej gi 141 personnes doxe fa réer mër ci géej gi ca saara yàgg ca Kédougou fa la l'observateur xëy tey ak reportage bu yaatu bu mu fa def ci gaskati or yi gaskati or yeeg gëskati or yi l'observateur ma fa dem ba gis leen mi ngi ñuy xamal ne seen bakkan mi ngi ci xott ndax la fay faatu bari na firnde li yéenekaay bi nañu bi at mi teroo ak léegi maanaam yi ak léegi ñeenti doomi aadama faatu nañu fa ndax suuf si moo màbbu ci seen kaw l'observateur nañu oor la ñuy wër waaye bàmmeel la ñuy gën a gis